salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen giyaar ñu ñëw ak yéen ci xibaar boo xamante ni GNG la jóge loole nag li ko waral moo di combat bi doon dox ci diggante Balla Gaye numéro ak kii di Serigne Ousmane di Bombardier combat boobee nag samdi bi passé la doon am waaye ba yëf ya jeexee na mu jeexee neexul woon benn amateur. combat boobee nag nii la demee bi ñu bi nga xamante ni kii di Sitor sifflé na ñoom ñaar ñi jàkkaarloo dañoo léewtoo tuuti songo. ñoom ñaar ñooñee di kii di Balla Gaye ak Bombardier Bombardier nag jàppante ak Balla Gaye ñu am cong bu ñu cong ci biir géew bi ñu génn nag saako bi kii di Ousmane ja di usmaan ja bombar Bombardier daaneel Balla Gaye ci ginnaaw saako yi ñu bëri nag ne jël la ñii di ne ñii ne du jël ñu si toor woowaat leen ci géew bi ñu bëriwaat loole nag bi mu jeexee kenn amut ndam par décision arbitrale ci la kii di Serigne Ousmane Dia amee woon ndam waaye ba làmbu ja jeexee kii di Serigne Ousmane Dia di Bombardier xool image yi ànd ak staffam dem ca CNG ne leen damay def recours ndax kii daan naa ko loole nag CNG saytu na ko xool ko xam ne Serigne Ousmane Dia di Bombardier am na ndam ci kaw bàll Gaye ndam lu set wi ci moo tax jox nañu ko ndam loole léegi lii di décision arbitrale bi dañ koy dindi kii di Serigne Ousmane Dia daanaat na Balla Gaye numéro 2 mu doon ñaari yoon yoo xam ne ñu ngi bëre kii di Bombardier di am ndam ci kaw Balla Gaye numéro 2 ndogal loole moo jógee GNG muy lan Serigne Ousmane Dia validé nañ jël bu njëkk bi mu daanoon kii di Bombardier kon nag gaañ yi xibaar bi moo ngi noonee ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen xibaar incha allah